Eh, jëlal jëlal leen ñaar di ngeen séparé wu. neel benn yéen ñaar di ngeen séparé wu maanaam di ngeen tas. sëy bi bu guddee fan ba gudd fan benn doom ngeen ci am te góor lay doon te di ngeen tàqali ko yéen ñaar te kenn bi ci doyal ndax warante am neel benn. yooyu code leneen li ñu des du ma ko xaju fi code 2 buntu nobante la jigéen bi moom hmm, boo doonul góor dëgg da ngay ndax moom xol bi lay dénk benn yoon bu jeex te am na buntu wërsëg bu yaatu bu fa ne leer na code 3 hmm. bi du gaaw a tas du ngeen mën a bàyyante te boo moytuwul kaso mooy sa wala tumuranke bu wut bi nga waxee fi yàlla na ci yàlla musal kay ba ñu waxee bu neex bi war nga wax yàlla na ci yàlla musal yow feex waaye fi bàyyi bee toog ñu ko ñëw na sa soxla waaw bàyyi ba ñu ngay musul naa taxawul ci code trois sax naa dara woon kii xam naa li tax xel mi dalul loolu dong la code quatre nag nee nañ dafa bari doole ba pare digg doomu mais ndëgër laay nag mën na la cee génne kon foofu dina fa sori dafa am yenn tegu ci biir. dëgg la code 5 mooy xuratul ay ni bilaa baytul banin. 5 mooy buntu njaboot gudd fan gis seeni sët. waaye souvent nag code 5 jigéen ji day faral di jàmbat bopp bi métti lu bari waaw bopp bi moom day faral di métti lu bari ndax lu ñu sànni ci ku góor ki rek ku jigéen kee koy capté te ko yëg sax mais code bi mooy def loolu code la cinq yi juróomi 5 la yu bokkul wala 5 yi ñeenti 5 la yu bokkul 4 yi ñeenti 4 la yu bokkul 3 yi ñeenti 3 yi la bokkul deux bi ñeenti deux lay bokkul un bi ñeenti un ba ci neuf ñeenti neuf la am na ba neuf neuf loolu moom téere yi génne wuñ ko waaye man nag dama ne tekk jàpp sama ñaam rek siis nag moom di bëggante di ngeen lobante waaye bu ngeen di toog tuuti di xiiroo ko ŋaayoo dépense moom da nga koy lijjanti. moom juróom-benn. moom ah, juróom-ñaar nag. da nga koy nopp mu nopp la waaye sëy bi sëyu cat lay doon mbokk yi dañ ciy integre wu ci biir bu xësee fay dootul dellu si waat te doo doyal fay rek fay fay rek dootul ñëwati. juróom-ñaar. gaa yi di wax nag moo si gën. gaa yi di wax moo si gën. xam nga waxu sëriñ si moom man damaa bi <laughs> gën sax am na lu ko gën. juróom-ñaar boobu ñu wax dafa gën. gis nañ fi juróom. juróom gën na fépp juróom. juróom gën na fépp mais sept baax na deux baax na cinq baax na cinq avenir la Macky Sall la ngi jabaram moom jabaram set lañ set dafa nguuru de set da koy gàllaajal mu toog boo ko defut def ba moytandi ko ndaw si bu xasee fay jeex na mënul ñëwaat moo tax sànq bi ma waaj yi wooyee ne ma sama jabar nii nangam nangam nee naa ko may baa solal na ma dem na seen kër ma ne ko bu woowaat ma tuuti ma xool ko mu nekk set sëñ bi daa ma ne ko kii defal ñaan ma ko du ma ci ñaan man moom du ci ñaan mën naa laa digal nag sarax yàlla mën naa def température bi wàcc ma digal ko sarax waaye du ci ñaan ñaata laa lay fay ma ne ko soxla ma dara set ma ne ko non dégg nga dama ne laalu ma yëyu ma yàbbiwu ma defu ma ci daara set laa gis set bu xasee fay sens li lay may sens pour mu ñëwaat lu toll nii la gis naa ñu lëpp xam-xam téeméeri junni woon gën laa foor lépp te set set bu demee lu ne dañ ko ci def même un même un bu xasee dem dajale xalima yi ci àdduna bi yëpp bindee ko ñu nga di ko ñaan ni pour mu ñëw nii mënoo koo jàpp ci njabar bu dee neuf nag moom neuf moom boo nee yaa sa taaru sax jàpp yaa sa taaru rek boo ko ëppee ci ngelaw rek jàpp maanaam wax parce que moo gën a bon yi bon yi moom taf taf nga jàpp leen di mais yu baaxee dañu yomb mais yu baaxee dañuy am défense nii dara du leen mën a léeg-léeg nga ñëw ci huit huit dafa am ñaari siixa yu ci am benn siixa bi dafa ne at bu ñëw mooy dàq morom ne ci neexaay benn siixa bi ne mën na am morante ci seen biir mais lu ci mën a nekk daal mooy wit daal bokk na ci nga xam ne taamu nañ ko baax na dafa équilibré wu quoi nag moom pour nga takk da dee boo amee bopp dëgg xuloo xeex xaañante coow lu bari ba keroog ngeen tàqali ko. amul sarax man ndax ndax li ma bëgg na laajte. am na sarax. mooy ak yii yëpp benn amul sarax. mooy mooy chiffre yi chiffre yi chiffre yi ndax ku jigéen ki da koy porté mu fixé ci moom wala mi ngi di dépendre ci adat bi ñu def ci digganteem ak bu góor bi waaw foofu la seen digg réalité bi tur la dafa naqaree téye il faut nga déglu li ñu ci tur bi araf ba mu la jox bu fekkee xam nga araf araf boobu ngay jël mais tey jii am na koo xam ne Ousmane la tudd nga koy jéem a araba naa Ousmane du jàpp bu dee ci da koy liggéey lay jàpp mais ana biddiw du jàpp Ousmane bi ñu wax alif ba ngay jël mais mais ku jigéen ki maanaam boo ko moom moom Ousmane boo leen adapté moom chiffre bi mu porté foofu bu dee un wala neuf par bu jëlee chiffre tey jii mu jox la quatre-vingt-dix. foofu dafa am beneen situation bu fa nekk. loolu nag mooy deuxième secret bi nag moom laa ko wax nag affaire nujum. li ma la wax kii nee naa ko loolu kenn mënu ak turu baay fan nga koy dugalee. bu ci def turu ndey bu ci def turu baay. arab yi ñoo doon indi ay turu ndey ak turu baay ndax ñoom dañoo wóoluwul seen bopp nee nit kuñ ne diw bàyyam la est ce que moo ko jóg kon ay moykat yàlla lañ woon <laughs> ah, waaw ñoo ko ci xel <laughs> waaw nanguñ ko wutal bàyyi lan moo tax ñoom nanguñ wutal nit ki bàyyi mm. te ñu ne kii mooy jëkkëram ñu bañ ñu ne yaay gën a wóor seen mm. xel dafa ndax kon yaa kenn soos ci suuf fii xool bi diw nit tur yaayam yoonam new ci bu njëkk dañ doon jël tur papa maanaam tur yaay boole ko ci ci biddiw mais nit ki boo bëggee gis ma man moom li ma yàlla xamal man man li ma yàlla xamal mooy Abou Masar Falek yi Shamsul Ariful Kubra téere yu mag yooyu noonu kooku yàgg naa ci sëgg xam naa bu baax la ca nekk yu ci bëri xool naa ko ci wàllu as ci wàllu nuj mu yëpp yu ci bëri xool naa am na ci yoo xam ne ci biir falak yu sax boo demee daf lay jàngal ba jàngal la nit ki sax ci wàll boppam ban bis day dee ak ban heure lay dee ak lan moo koy rey adat bi koy def loolu du ci adat sax maanaam di nga laal adat la ay ay ay dem ba di la wax ne la góor nangam façon jigéen nangam moo koy satisfaire boo duggee ba ci biir da ngay dem ba boo jàq loolu mënuma ko tudd ci mbooloo loolu kenn ko wax loolu moom xalaat beneen question bi mooy beneen question bi mooy soxna si waaw dara warul moom beneen question bi mooy soxna si ah, ah, soxna si ndax bu nekkee neuf ci ci Moussa. Ah, léegi nag yow léegi d'accord na Assane. xaaral c'est comme moom nee dafa bëgg ma wax. waaw naa leen.